de la 7TV télé bi ñu nuru ba noppi ñu dajale mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu koy defee fépp foo xam ne xew-xew am na fa ñu fas yéene ñëw ànd ko ki fi ngeen ñu gis nag ñu taxaw moom mooy Pikine Pikine xam ngeen ne xew-xew bi fi am ay bés boobu ba léegi muy lakk-lakk bi nga xam am fii si marché Zinc muy xew-xew bu doy waar dem si biir xool li nga xam ne moom moo xew actuellement nii fii nga xam ne moom mooy Pikine ñu xool def nag état des lieux gannaaw lakk bi mu amee pare jéye ji nga xam ne am na fi euh, kilifa yi ñëw nañ fii massawu leen gannaaw sant nañu yàlla ba nit ñàkku si bakkanam waaye ay millions yu bëree bëree bëri lañ ci perte Cheikh danga may topp ñu daal di xuus dugg si biir marché bi. Souleymane yow dañ la fekk fi si marché bi lan nga fi lakk. bon euh, luñ na waaye ñu ngi koy sant yàlla bëri na lool koo xayma fuñ ko xayma rek natt na ko fuñ ko xayma rek ëpp ko mais loolu yëpp ñu ngi koy sant yàlla bu baax. ndogal yàlla la kon bakkan retour rek ñun métti na waaye am na fu mu yem ci ñun parce que bakkan moo gën a foor bakkan moo mën a liggéey alal alal mënul liggéey bakkan mais métti na nag fu ñu la ko xayma rek ëpp na parce que boo xoolee li fi nekk gis nga bayaal bi lu tolloo 150 places mu ngi fi taabal rek la wax te cantine kenn boolewu ko lépp bu ñu ko boole woon dina ma 200 places place bu nekk ñetti njaboot wala ñeenti njaboot ñoo ci doon liggéey instant ñun ñëpp ñu ngi chômage ah, xëy boo da ngay xëy boo xëyee am loo am nga ndugg yónnee sa kër waaye loolu moo tax buñ bu lii dalee ci marché bi rek bu rëy la eh, métti na mais ñu ngi koy sant yàlla gëm nañ ci yàlla te mais terewul tam ñu ngi ñaax état bi ñu jàppalee njaboot parce que ñun tam ci njaboot bi la ñu bokk ñu ngi fay lu ñuy war fii ci marché bi dañuy fay juuti fay patente fay abattement fay lépp la ñuy fay lépp lu ñuy war ci diggante état rek def nañ ko mais ñoom dem ñu ngi leen di ñaan ñu ñaan leen ñu ñu def ci seen loxo waaw terewul tam ñi ñi jàmbaar lañ ku nekk xaarul gis nga ko ñii yëpp ñun ñoo baleel suñu bopp jëlal suñu bopp di fay booy di yóbbu ne lii ñoom te ñoom waroon nañ ko def xam naa naam dinañ ko def mais nekk njaboot moo tax mënuñu xaar lool moo tax ñu def ko waaw wax dëgg yàlla euh, loolu rek lañ ci mën a ñi ñi ngay gis yi yëpp ñëpp ci marché bi am na ñoo xam ne sax ñëwuñu am na ñëw boo ñëwoon fii démb wala barki démb dangay ngay mais sant yàlla ñu ngi koy. sant ñaata man def naa fi 23 ans. def naa ñaata place nga fi euh, presque am naa fi 4 places 4 places laa fi am ñaar ñoo lakk yàlla dimbali ñu desee ñaar. ñaar boo xaymaa yow si li nga lakkale war na toll si ay ñaata si million. <laughs> bari na euh, bari na euh, mun munuñu ko tudd munuñu ko tudd mais bari na yàlla rek moo xam man xam naa mais bëgguma ko tudd. mais ndogal yàlla la maa ngi koy jàppee euh, ndogal yàlla rek. pour yow lakk bi lan moo ko waral parce que xaaju guddi la. xaaj guddi la nee nañ ay 2 heures du matin euh, presque mooy wane nii da maanaam kenn newul fi parce que lakk bi bu mu commencé bu fekkoon am na ñu fi nekk mënoon nañ ko sauver mu bañ yegg si fu mu yegg si mais euh, balaa ñu ñu ñu ñëw daal fekk affaire bi jeex na ay 2 heures du matin lañ wax nee nañ woo nañ sapeur balaa ñu ñëw ay 4 heures li waroon am rek loolu moo moo fa sës xam nañ daal li def waroon am am na ba pare. c'est la première fois lakk bu mel ni am fi fii si marché Zinc Pikine. c'est la première fois marché bu mel ni lakk bu mel ni am fii yàgg na lakk na man bi mu fi nekkee ba léegi nee naa 23 ans mais gis naa mu lakk lu tolloo 4 fois wala 5 fois mais ay ñetti place wala ñeenti place ñoo doon lakk yàlla def ñi ñuy ñëw sooyee ko mais bii yoon mag bii lu tolloo sa bayaal bi gis nga bayaal bi yëpp ay place la ñi ngay séentu yëpp ci biir ni yëpp ci la bokk moo tax ñu ne la làkk bi moom kenn mënu koo xayma man de mënuma koo xayma nag ay million million ñoo ci nekk ay million million moo ci nekk léeg-léegi nag li ñu ñaan daal état bi na nañuy jàppale ñun ci njaboot bi la ñu bokk dañuy jàppale parce que lii gën a métti koo xam ni day xëy wuuti dépasse fi nga doon xëyee wuuti dépasse bi yàq ko amoo fooy xëyee gisoo ñi taxaw yëpp ku nekk daal taxaw tiim place am ku nekk daal taxaw tiim place fi ngay fayee luyaay fi ngay fayee sa njàng doom fi ngay fajo waaw loolu nag bu bu yàqoo am na yenn xaar yoo xam ne moom mun mënuñu ko xaar ñun ñu ngi débrouiller suñu bopp ku am bant ñu teg ku am muul ñu teg ndimbal bu ñëwee fekk ñu bu ñëwul tam ñu nañ ñu bàyyi ñun ñu liggéey suñu liggéey mais ñu ngi ñu bëgg ñoo xaarloo xaar leen dinañ def ni dinañ def loolu ñun ñu arrange wuñu nañ ñu bàyyi bu ñu ñu liggéey suñu liggéey bu ñu ñëwee fekk ñu si ñu continuer ci liggéey bi loolu laa ci doon li wax rek yàlla ko dogal ñun dañu xëy as vendredi cinq heures du matin la xëy di ñëw sama benn xarit wooma ma ne ba naa information li xaw ma ne ban information ma ne ah suñu marché bi de lakkan boobu jeex ah ma continuer ñëw suñu ma ñëw fekk effectivement noonu la amee mañ fekkee marché bi daal li ñuy wax marché zinc daal ci marché alimentation lakk na ba jeex waaw kon fii affaire lekk rek lañ fi doon jaay tout ce alimentation lañ fi doon jaay. Euh, ci ëpp moom lii nii lépp fii nii ba fii nii yëpp alimentation xanaa li feete na tuuti moo nekkoon lu ñu fi ñuy jaay ay cuuraay mais li fi ay alimentation légumes li mel noon daal moo nekkoon ci diggante gi du jën du euh, du yëre diggante lekk ak li lekk la daal moo fi nekkoon daal. def nga fi ñaata man def naa fi euh, def naa fi presque 30 ans parce que 93 ba léegi maa ngi ci marché bi. ñaata place nga fi amoon. Euh, fii moom benn place laa ci amoon benn place. li nga xayma yow ci li nga ñàkk pour yow nu muy toll. moom mu ne nii xayma parce loo ci xayma rek nga juum loo ci na loo ci xayma rek nga juum loo ci wax rek nga juum parce que bari na la bari na waaw kenn nu laa xayma naa ne kenn ku ne ak sa place lu mu ndaw ndaw mënoo cee xayma parce que lu berte la moo tax kenn mënuñ xayma daal. yàlla léegi ñu ngi leen di masaw lan ngeen di xaar. ah ñu ngi xaar parce que ministre bi ñëw na fii. Euh, wax discours am ñu ne woon démb ci guddi ay oto yi war a bale marché bi dina ñëw mais boo balee ñu ngi taxaw di xaar gisaguñu bale gisuñu oto bi ñu ngi taxaw di xaar waaw. fi ñu la fekk nga taxaw sa place la kon gis nañ ne yow sa place dafa lakk ba jeex. waaw na tàkk moom waaye loolu la yàlla dogal waaw yàlla moom lu mu la dogalal mënoo ci dara ndax su ma xoolee ci marché bi am na ci ñoo xam ne ñoo ma ëppale fuuf. ma di leen maasawu di maasawu sama bopp ndax borom place bii daanaka ñeenti place la yëpp géej la defoon brise de mer yëpp lépp gis nga ko def na doom moom daa ñëwul tey waaw kooku Ndoura Diop la tudd waaw. yow def nga fi ñaata at fi naa fee def lu mat fanweer fanweeri at waaw yàgg naa fi yàgg naa fi trop waaye nag metti na daal waaye yàlla mu la dogalal mënoo ci dara metti na nag ñoo ngi koy sant yàlla bu baax. di ñaanal ñeneen ñi kenn ku ci ne loo fi ñàkk yal na la ko suñ borom remplacer ba sa xol sedd kàttanu yàlla. léegi nag dañoo taxaw nii pour mbalit mii ñu génneel ñu ko ndax xam nga ay jaboot mënuñoo toog noonu rek seeni kër ñu bëri am na loo xam ne li ñu lijjanti ci marché bi lañ koy lijjantee seeni kër xale yu góor yaa ngi nii ñiy yor seeni ndey. ñi yor seeni jabar nekk ay xale di daan seen doole ci marché bi ñoom ñëpp gis nga ñi ngi nii taxaw daanaka alxemes ba mu lakkee ba léegi xale ya góor yaa ngi fi xam nga loolu tamit metti na état ñuy ñaan mu jàpp ci dimbali ñu ak képp ku ñu mën a dimbali rek nga jàpp ci dimbali ñu ñuy ñaan dimbal waaw. nga nekk waajur yor sa kër yor sa njaboot euh, yor sa place itam di si suturlu euh, natt bu mel ni tegu seen kaw lan ngay yëg. waaw xanaa sant yàlla dellu di sant yàlla rek ndax yàlla moom li mu def kenn mënu ci dara waaw ñun dañoo xëy rek ñu wooñu ni ñu place lakk na loolu lañ ci am. waaw. teen ba léegi xam leen moo ko lakk. xamuñu dara lu ko lakk xamuñu ci dara lakk ne daal lañ ci am xamuñu lu ko lakk. si marché bi nga nekk. waaw si marché bi laa place nga fi ñaar place laa si am. def nga fi ñaata at. Euh, depuis 2006 maa ngi fi. d'accord noo yëgee xew-xew bi daal seen kaw. Euh, xew-xew bi bu ma ko yëgee dëgg yàlla dafa am li ma métti mais d'abord dañ koy delloo si yàlla kon si mbooloo moo dogal lii euh, loolu rek moo tax mais kenn mënu si dara mais li ma bëgg a wax ñaan njiitu bi. nañu defar suñu mbaar yi ku nekk delluwaat sa place nga liggéey ndax lii dafa metti ay borom kër borom njaboot toog fii ay une semaine liggéeyuñu dafa metti nañu euh, monsieur maire lañu lancé appel nañ mun a jàppale nañu defar suñu mbaar yi maasale fii di nit ñi baleet bi ku nekk delluwaat sa place nga mën a liggéey ndax lii dafa metti trop am na ñi nga xam ne nag dañoo bëgg a def affaire politique pour daanee marché bi yëpp mais loolu tamit bu amee tamit bu fekkee liggéey bi dee gaaw moo ñu galaan ndax marché bi mu ko defar marché bu mucc ayib nda naam ne si kaw tali bi day libre am lu mu tudd espace tali bi yaatu mun a defar si marché bi am espace bu nga xam ne bu oto euh, bu lii mun a amee oto yi mun a am fu ñuy duggee fu ñuy jëndee defar ñi ay robinet yi nga xam ne tamit lii bu amee sapeurs pompiers bu ñu ñëwee day mun a balancer foofu seen rigo euh, seen rako yi ñu mun a fay ndax lii kenn ñaanul yàlla moo am mais marché dafa war a am ay sécurité ndax lii bu amee ndax du am ay benn jafe-jafe ndax balaa oto bu ñëw mais fii bu amoo ay ay ay robinet satellite bu ñëwee fooy lañ balancer seen seen rajo yi mun a fay kii bi mais lépp luy mun a ñaan fii tamit nañ ñaan autorités yi ñu jàppale ñu ñu defal ñu fii dindi mbaleet yi maasale fii yëpp ah ñu sotti ay suuf lépp maasale defal ñu suñu mbaar ku nekk delluwaat sa place. def ko ay place yu baax waaw waaw kay ay place yu am sécurité. yow lan ngay xayma xayma si li na dëgg yàlla jotul yëkk sama place mais nag kon samay mbokk yi ñoo lakkale dafa mel ni man maa lakkale ñetti place moo desoon pour mu yës sama place mais suñu borom moo dogal. nga xam ne ñoo lakkale yëpp yooyu suñu borom dafa dafa mission pour ñu lakkale ndax yow defuñu yàlla dara mais kon yàlla dafa dafa loo dara xanaa santuwaat yàlla rek xam ne lu doy waar la lu ñu ngi nii ñu la ñoo lakkale seen ay bagage ñoom ñëpp ku si xëy da nga ñu Omar waaw presque man def naa fi ay vingt ans daal waaw. d'accord yow boo xaymaa si li nga lakkale war na toll. waaw man franchement moom li ñu lakkale moom mënuñu koo xayma sax waaye daal wax yàlla ba takku na trop trop trop trop daal. waaw noo xew-xew bi daal seen waaw xew-xew bi moom damaa toog ba presque ay 5 heures du daal ci lañ ma woone ma daal marché bi daal mi ngi tàkk daal. waaw noonu daal la deme daal ñu ñëw fekk ñi ak sax fekk na moom suñ place takk na ba jeex tàkk fekk nañ sapeur yi fay mais. parce que nee nañ ay 2 heures du matin la commencé daal mais xam naa ni ñu waxee que moom 4 heures lañ fiy doog a ñëw te bi ñu ñëwee itam am nañ problème pour dugg ci marché bi daal. franchement ay jàmbaar lañ. mais digg bi. waaw dafa nekk ci digg bi dafa nekk digg ba pare te bu espace bu ñu mën a jaar itam nekk problème daal waaw moo tax affaire yi gën a metti daal waaye lakki moom gis nga ko nii non foo takk daal passé na ko metti na trop trop waaye nag ah suñu borom mooy dogal laa dañ koy sant yàlla suñu borom bu baax a a baax rek waaw ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax nag waaw ah, wallaahi mais li fi yàqu moom kenn mënu la kenn mënu koo xayma bari na trop ay milliards sax kay laa waxuma la ay millions ay milliards ñoo fi yàqu waaw billaahi noonu la demee moom

nit ki liggéey sa alal ba xëy benn bis ñu la naaw na loolu moom métti na ci ñëpp ci des nag mooy ñi ñu a dimbali ñun gisuñu kenn parce que ñun soxlawuñ lu ñu dindi mbalit mi nañu ñu tonel mbalit mi bàyyi ñu ñu liggéey parce que ku leen di xaar pour ñu defaral la dootoo liggéey mën nga toog fii at ñaari at doo liggéey léegi bu ñu dimbali woon tonel lu mbalit mi noonu ñu continuer defaral suñu bopp continuer suñu liggéey man sax du man parce que man daanaka samay at passé na mais xale yi fi nekk di rey seen bopp di daal seen doole rek metti na ci ñoom trop man ñoom laay du sama bopp parce que man li ma lakkale bariwul mais xale yu ndaw yor seen ndey yor seen baay di liggéey lii dal seen kaw gis ñu kenn ku leen war a jàppale dafa metti dafa metti loolu rek mooy problème bi mais man du sama bopp man sama àddina wéy na na li ma waroon am am naa ko ba pare bu ma dee woon tey du ma wàññi dara parce que li ma war a am lépp liggéey naa ko ba am naa ko dama nekk fii rek di faraatu di jàppale xale yi mais du man mais xale yu ndaw yi fi nekk liggéey bay bëgg de dee lii dal gis ñu kenn ku leen dimbali loolu ma métti loolu mooy li ma metti man loolu mooy sama problème mais du sama bopp. da nga amoon fi si marché bi. waaw dama fa yoroon ay place ay place d'accord yow noo yëgee xew-xew bi dal seen kaw. nga ah, xanaa métti rek metti rek metti rek fu métti commencé daal fa la yem ndax euh, dañ fee nekk suñu doom nekk fekk suñu càmm ñoom ñun lujum lañ doon jaay ñoom ñu yoroon ay ceeb ak ay diwlin nag ñooñu gën a mettile waaye ñu nit mettile waaw ndax amoon nañ fi ay marchandises yu bëri yu ñu dencoon ndax julli gi ah, bu julli gi passé marchandise bi day manqué ñu dugaloon ko suñ suuf place pour bu julli gi passé ñu mën cee liggéey waaye nag metti na trop waaye ñu sant yàlla bu baax ñu sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax. def fi ñaata at. man yàgg naa fi presque fanweeri at am naa ko fi. maak sama yaay ñoo fi nekkoon sama yaay gaañu bàyyi ma place ma nekk fi nag di fi am nag sama taraanga macha allah nag di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax waaw. nga xëy sa place yooyu yëpp lakk. Mm, ma xëy nag sama place yëpp lakk ma toog nag di ñaan yàlla nag yàlla remplacer ñu ko ñun ñëpp ñu fi yàqule yàlla remplacer ñu ko ci kàttanu yàlla waaye nag dañoo gisul benn autorité bu ñu dimbali waaw boo amee naqar. te amoo ku la ko dimbali ku la jàppale day metti ñu ñaan yàlla daal gouvernement bi lu mu ci mën rek mu jàppale ñu bu baax waaw ndax ñi nekkoon ay borom kër lañu rek saa bu ñu xëyee fi la ñu jëlee lu ñu yóbbu suñuy kër waaw fii la ñu jëlee su fi la suñ teraanga nekk fi mu nekk nii la ñu war mi ñu war te amatuñ ñu ko jëlee waaw fii rek lañu yaakaaroon. noo yëgee xew-xew bi dal si sa mbokk xam ne ñoo nekk fii si. fii moom sama doom maa fi doon liggéey ba ma demee ba liggéey te sama doom bii moo fa nekk di fa liggéey. ci guddi la ma woo ma marché bi commencé na la ma ne ko na ngeen fexe ba bu leen ci gaañu yéen rek bu leen gaañu nax yàlla moom noppi ne ni mu war a def dana ko def metti na lool alal ju bari yàqu na alal ju baree baree baree bare danoo bokk nu dimbale nag defaroon nu ko defal foo xam ne dañ ci mën a dugg léegi liggéey ndax fi mu toll moom di ko bàyyi naa dañ koy def loo xam ne du day yàgg du du arrangé nit ndax ku ne fi mu toll yaa nga bàyyi sa njaboot bëgg loo ci yóbbu loolu daal la ñuy wax sant nañ ministère bi nag ñëw na fi démb waxtaan léegi dem na delseegut ñëwagut waaw ba xam buñ dikkee luñ ñuy wax loolu daal mën laa ci xam metti na moom metti na lool waaye yàllaa ko dogal nag yàlla moom moo moonu ko joxoon moo ko jël dana nu jox leneen noo ngi sant bu baax. ñuy ziar bu baax soxna si. da nga am place fi si marché bi. waaw dama am place. noo tudd. Ibrahima Ngop. noo yëgee xew-xew bi dal seen kaw. ah métti rek metti rek métti na trop mais dañ koy doyloo suñu borom rek. te xam ne yàlla moo ko dogal daal boobu ba léegi ñu ngi fii di jéem a defar suñu place mais mënuñu dara lu yàlla dogal kenn mënu ci dara mbalit maa ngi boobu ba léegi kenn autorité yi jéemuñu dara suñu mbalit maa ngi boobu ba léegi ñu bëgg kuñ ko tonni mënuñu ko tonn te amuñu fulul fii suñu njaboot yi fii lañ yaakaar suñu xëyee fii lañ jë xëy ñëw amuñu fenn fulul fii kuñ ci dimbali rek ñu ñu jëm ñu jàppale rek lan bëgg te yàlla tax waaw bu ñu xëyee ay xalel duñ sàcc lu jël luñ moomu xamul lu dul daan doole xamul lu dul ñàkk jariñ xam ku ñu jàppale daal lañ bëgg te yàlla rek tax toon ni ñu mbale ñu tàmbali commencé liggéey na ñun taamuñu lu dul liggéey taamuñu lu dul marché bi. da ngeen di xëy donte da ngeen di ñëw toog di xool. saa bu ñu xëyee ngi fi saa bu ñu xëyee ñu fi. saa bu ñu xëyee amul jour bu ñu xëy te duñ fi ñëw su ñëwee rek dañuy defee ne sax dañuy xëy si pour liggéey mais defuñu fi dara di xool lii mu métti lool mënuñu si dara lu yàlla dogal la nag kenn mënu ci dara ñu koy sante yàlla nag sant suñu borom bu baax. voilà Cheikh mu ngi noonu mu nekk loo xam ne lu doy waar lool lool la ah gis nga li nga xamante ne moom moo xew fii si marché Zinc depuis alxamis ba léegi euh, ñu yeewoo ko jàpp ajjuma si fajar mu nekk loo xamante ne lu doy waar lool lool la li si gën a daw yaram mooy bu ñu xëyee ñoom ñëpp dañuy xëy ñëw toog ba ngoon jot ñu dem ñibbi

kuy yu mel ni war a mën a wàññeeku bu baax a baax ndax xam ngeen li ñu fi ñàkk ay millions et des millions la ndax ku si nekk sa place li nga si defoon sax dootoo ko xam mais lu si mënti doon daal métti na lool lool mais sant yàlla nag bi nga xamante ne bakken dootu si ñu ngi leen di massa bu a baax di leen ñaanal la na leen yàlla wuutal leneen lu gën lii jaajëfal na leen bu baax a baax rendez-vous incha allah maa di lay doonaat fépp fu xew am rek dañu fas yéene ànd ak yéen indi si biir 7TV télé bi ñu nuru ba nopp dañu a baax si caméra bi ak Mouhamed